ci actu lu yëngu ne lako ko lako upp ko doole xam ngeen ne club bu mag bi nga xam ne moy Stade de Mbour depuis un certain temps amul président ki fi nek par intérim la fi nekkee ndax président bi fi nekkoon dafa démissionné fi mu tollu ni nak fépp fo tourner ci Mbour ciow la nga melni Tulle ak Màlle ndax ñom dañoo wara def sen assemblée générale le 12 septembre ci lolu nak candidat yi bari na lool kenn ci candidat yi tey la Dakar Actu fas yéene jàkkaarloo muy woosi turu Moussa Mbaye ci fonction muy inspecteur du trésor waaye présentement moom mooy directeur de cabinet bu ministère de l'agriculture ñu fas yéene waxtaan ak moom ci li tax moom mu bëgg a jiite club boobu Moussa ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay signal yu alors euh, Moussa euh, coow li bëri na. Mhm. sa candidature ci li nga xamante ni moom mooy à la ci équipe boobu nga xam ne mooy équipe bi gën a màgg ci Mbour muy stade de Mbour mm-hmm. lan moo ko wundu candidature boobu. jërëjëf euh, Aliou balaa may euh, egg ci loolu nga may ma ma jullu ma sant suñu borom julli ci sangu-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa euh, waaye itam. me remercier le comité des supporters du stade de Mbour ndax euh, su ma tontu ci lan mo wundu sama candidature ci poste président du stade de Mbour defe né euh ñom lay jital ndax man dama dëkk Mbour nek fi yalla dogal bi euh, ancien président au stade de Mbour bi démissionné ñu taxawal ben comité.

comité supporters yi dellu à la suite d'un compagnonnage nous avons amoon mag lu décidé euh, d'être président d'honneur du comité des supporters du stade de Mbour ma nangul avec beaucoup d'honneur avec beaucoup de fierté mais nangul également avec beaucoup d'humilité jamono di dox di dox comme nous l'avons la ko waxee ci cadre compagnonnage euh, peut-être ñom ils sont mieux placés que moi pour wax li ci nekkone jamono dox donc ba ñu ñëw ne ma ah président ñun de buñu ñu sañoon euh, nous allons vers une assemblée générale bo xamanteni dañ ci wara désigner un futur président un nouveau président en tout cas pour le stade de Mbour te buñu ñu yow lay doon leen lu ñu ah ñun de gis nañ ni la nga fi jotta def bo ba légui té bëggoo présidence yootuwoo présidence néco président boo doonee président ñun suñu xel gëna dal boo président xam nañu stade Mbour dina egg fo xamanteni ñun ñëpp fa lañ koy séntu. Euh, accord bima leen jox nak ça n'a pas été facile à obtenir lutax parce que ku xam stade Mbour xam club bu mak la ku xam stade Mbour xam ni day cristalliser passion yu bari ku xam stade Mbour xam ne lu muy laaj ci jot amna lu muy laaj ci xel amna na lu muy laaj itam des fois ci mën-mën financièrement parlant donc euh, j'avoue que par deux fois ñaan na len jek mais à force d'abnégation ma nangul leen ko té bama len koy nangul itam dafa am fu ma ko teg fu man je suis quelqu'un d'engagé du ma dugg ci luma ma narul eggali du ma dugg itam ci luma mënul donc euh, tay ci gattal seigne Aliou loolu mo indi ma bëgg présenter sama candidature ci président du Stade de Mbour mais de la leeral ni initialement c'est une demande qui est venue du comité des supporters mais man nangul len ko comme ni mala ko waxe avec beaucoup de fierté avec beaucoup d'honneur parce que lu toll ni Stade de Mbour mu don club bo xamanteni tay buñ lay naan ñan ñoko créer da nga naan Léopold Sédar Senghor da nga naan Demba Diop say morom say rak say mak

ah de pas je n'ai aucune ambition politique Stade de Mbour mbirum sport la Stade de Mbour mbirum sport la te euh, sport koy doxal du politique donc te ce sax je ni Mbour ci un président essaie de faire de la politique à travers le Stade de Mbour parce que président Stade de Mbour dafa des soutien yi war a mën a jóge fu ne ndëgg sërëxal itam bañ a am ndax tey ku àndut ak yow dina la jéem faxatal ku ànd ak yow itam bu fekkee ni àndoo ka mu àndal mën na laa jéem a problème donc neutralité boobu man moom laa affiché bu dee keneen nag day politique ça n'engage que lui mais man tey moo wax leen ko officiellement je suis apolitique. alors ci ci beneen fànn sa diggante euh, maa ngi dégg yeneen ñaari candidat mm-hmm. sa diggante ak euh, candidat yooyu. Mm-hmm. Euh, naka la. ak est-ce que mën nañu xaar benn coalition Moussa Mbaye ak keneen. bon euh, question boobu peut-être dinaa ci tontu mais pas de manière directe wax naa la ko sànq ci sama ndorteelu wax nee naa comité des supporters man moo jug ñëw ne ma dañoo bëgg porter sa candidature à la présidence du Stade de Mbour donc man sama candidature dafa am deux particularités d' abord c' était une candidature spontanée juguma ne damaa bëgg a doon président Stade de Mbour ma ko. ensuite dafa doon candidature boo xamante ni ñi ko porté ñooy këru Stade de Mbour ñooy amu Stade de Mbour muy supporters donc moomatuma sam bopp tey ñooñu ñoo ma jiital ne ma dañoo bëgg nga jël président Stade de ma ànd ceeg ñoom nag mais moomatuma sam bopp pour ne damay dem allié ak beneen candidat wala damay dem bokk ak beneen candidat qui plus est man fi tolni la balama nangu jël président Stade mbou balama nangu déposé ma candidature pour ce président Stade mbou dafa am fu ko dama xalat ci Stade mbou ni muy lan moy problème xalat fan la bëgg Stade mbou egg fi 1 un an fi 2 ans fi 3 ans ba kérok may à lay ngay at bu jot am na bëgg Stade mbou té lolu ce sont des attentes ce sont des objectifs mais ma suis fan laay jëlee moyens pour atteindre ces résultats donc la candidature est de ne dañu rek def ko alliance aura pas deux présidents du Stade de Mbou. il y aura qu'un seul président du Stade de Mbou qui aura la responsabilité d'amener le club là où les supporters veulent qu'il arrive donc nous ñun ci lañ à liggéey dogu ci supporters ay doomu aadama lañu tey euh, man je pense que kuma xam xamni je suis un homme de dialogue je suis un homme de concertation euh, je n'ai pas le monopole de la vérité aussi bien que comme ni ma la ko ni ñi ma àndal ñooy amu stade de Mbour mais buñu woron tay bu len woron ñom nek il y a quelqu'un de mieux placé que moi pour nek président stade de Mbour nañ ñëwé na ma ah président ñun de bëgg nga jël ngay bu ñu ñëwaatee président dañu bëgg nga ranger ju ginnaaw diw je le fais sans hésiter alors euh, peut-être que euh, bu de bi le stade de Mbour c'est mort, nous see moor noppeegul. Euh, ñu ngi assemblée générale. alors de bi yëpp a une évolution. évolution. c'est une affaire de jeunes est-ce que vous pare à toute situation pour que mbirmi dans la plus belle manière que violence vraiment bañ a am ci bien sûr bien sûr loolu mom dama ci dalal sa xel di dalal xelu ñi ñuy seetaan ñëpp euh, comme ni ma ko waxee man je suis un homme de dialogue je suis un homme de concertation euh, gëm naa ne dëkk bi ñun ñep ñoko bok té kenn ci ñun du sétane dëkk bi di tak té gëm naa ni sax li ñuy jëm ni tuuti na pour taal dëkk bi mais en tout cas kenn ci ñun du nangu gàddu responsabilité indi ay problème ci dëkk bi muy man ak ñeneen ñaari candidat yi nga xamanteni ñoo sekk mbir mi

Si nous ñu un président Stade de Mbour ñing ci un jëm ñing jëm ci AG président Stade de Mbour lolu gatché lay doon mais club a 60 ans ak histoire de mu am ak limuy ci dëkk bi je pense que c'est tout à fait normal Mais cela ne doit pas nous dévier de nos responsabilités suñu responsabilité moy tay ñu nous ba valeurs yi nekk ci sport Stade de Mbour donne le club qui les incarne le mieux au Sénégal une responsabilité mooy équité éthique déontologie bi nekk ci sport ak fraternité bi nekk ci sport solidarité bi nekk sport fair play que l'on trouve trouvé ko ci biir Stade de Mbour club du Sénégal balaa nga ko gis feneen nga ko gis ci Stade de Mbour te amna comportement yo xamanteni ça ne militera pas en faveur de cela et je pense que man en tout cas en ce qui me concerne et en ce qui concerne les supporters yi ma andal ñun inscrit ñu ci dynamique bobu te gëm naa ne ñeneen ñi tam ils sont assez responsables pour ne pas s'inscrire dans cette dynamique alors euh, sa kàddu bu mujj

le moyen et le long terme organiser comment Taï football moderne dafa am ay exigence football moderne dafa am ay exigence Amna na yenn nga baal ma tuuti ci kàddu gi am euh, wala yenn fonctionnement yoo xam beaucoup boo ci stade de Mbour da lay metti parce que peut-être jamono ji ñu toll am na club nawetaan yoo xamante ni sax passé nañ loolu te loolu organisation moo lay may nga weesu ko donc comme ni ñu koy waxee xar day stade de Mbour ci li muy tekk ci dëkk bi ci potentialité yi Mbour am ci li ko ci ay supporters ci li muy cristalliser ci ay passion war am fo xamanteni warna war malheureusement l'égal encore gi mo organisation organisation sur le plan administratif organisation sur le plan technique organisation sur le plan financier donc lolu ñun nos premiers chantiers foofu lay doon Stade de Mbour donne un club organisé avec une équipe forte autour d'un président pas un président fort dirigeant une équipe

ak liñu yalla may ci ay nit ñoo xamanteni tamit xam nañ leen mën leen leen xëcc ci xër bi ñu xër ci stade de Mbour stade de Mbour war naa weesu problème salaire dans un premier temps maintenant nak ces ressources là comme je l'ai dit c'est sur le court terme qu'on va les mobiliser ressources yooyu du ñoom ñooy développer stade de Mbour xaaruñu sponsoring pour développer stade de Mbour xalaatuñu ay dons pour développer stade de Mbour mais li ñu bëgg ci loolu mooy asseoir des infrastructures assez solides pour permettre club bi mu tegu sur une rampe vraiment croissante. far dañuy faral di gis aussi président yi dañuy njëriñoo club yi. Mhm. est-ce que tamit amul benn intérêt bu nekk ci suuf boo xam ne yow euh, gis nga ko nga war ko mën a récupérer. non ci ci côté boobu dama lay dama lay rassurer euh, peut-être euh, yaa ma gën a xam buur demal laaj ñi ma xam tuuti tey. gëm naa ne man jombal naa sam bopp bopp di lekk xaalisu stade de Mbour boo xamante ni war ma koo jël tey par exemple ñaan naa yàlla nag ñu dem ba Stade de dox fii ak 4 ans bañ naan ah président bi de Stade de Mbour day saay di ko defal ay cadeau parce que Stade de doon na ngandam ak club mais jamono ji jamono ji man jombal naa sama bopp di lekk xaalisu Stade de yaa ngi dégg ñi ma àndal itam jombal nañ ko seen bopp ñun li ñu bëgg mooy liggéey li bëgg mooy liggéey léegi comme ni ma la ko waxee suñu liggéey boobu noonu dañ ko teg ci ñetti fànn yooyu le court terme le moyen terme et le long terme le court terme le moyen terme on va assurer la promotion du stade de Bourg en nous basant sur tout ce qui a comme potentialité dans le département de Bourg. le long terme pour Gatel, on va faire en sorte que le stade de Bourg ait des, infrastructures solides et des infrastructures qui lui permettent aujourd'hui de compétir dans la cour des grands en termes de transfert Si joueurs ce sont les joueurs que nous avons pris peut-être du Navetal mais amuñu centre de formation bo xamanteni tay mën nañu assurer un nombre assez important de joueurs Nous xamanteni tay mën nañu indi club bi am am bo xamanteni tay tey mën na fa jëlee lu muy tabaxé centre de formation mën na fa jëlee lo xamanteni par exemple dina lutter efficacement contre le chômage et le sous-emploi à Mbour donc lool yëpp c'est des chantiers sur lesquels nous allons nous inscrire peut-être que li duuf lépp xajul ci cin wi mais juste une annonce et peut-être en espérant que dinañ am occasion yo xamanteni ni lii ko développer inshallah mais je voudrais vraiment euh, euh vous rassurer